Doudou dina ñëw benn spécial euh, Doudou Ka euh, très sincèrement euh, di leen xamal ni Doudou ñu ngi ñëw ci yow incha allah Doudou la manipulateur di fay ay étudiants di leen jox xaalis boo xam ne baayam bàyyi ko fi yaayam bàyyi ko fi bés bu ñëwee ci opération rëbb dëmb Doudou Ka ngeen xam ni lépp jeex na lépp dinañ ko génne sëram bu muy jël xaalis bi di ko jox Ziguinchor étudiants yi muy manipuler di leen jox ay xaalis pour ay xeex ak Ousmane Sonko yooyu yëpp dinañ ci génne caga ji muy jël ak hôtel yu mu leen di yóbbu lépp dinañ ko génne coggam bi ma leen wax élage lépp dinañ ko génne donc ñoom ñëpp dinañ leen génne ah donc euh, bu leen tiit bu leen ragal lépp lu nekk ci réew mi man Mollah Morgun dinaa ko loqati jox leen ko sur le plat te di ngeen ko am donc opération rëbb dëmm Doudou Ka bientôt dans les bacs kii bokk na ci ay cagam waxoon naa leen ko démb moom la ñuy woowee Odette bokkul ak caga bu Abdou Karim Fofana kii caga boo xam ne la euh, ci caga duutukaay yi la bokk di directeur euh, euh, ak chefu aéro seen aéroport seen aéroport mi ngi ni kii moom mooy ci caga Doudou yi la bokk muy odet waaw xale bi moom bàndi la moom ñoom ñoom ñoom xale yu bandi lañuy ñuy wër ñoom ñoom ñoom si ñoom caga première classe yi la ñuy wër donc mi ngi ni beneen a ngi nii aussi ngeen ràññee seen caga yi ñoom ñëpp ñoo nuroo caga nag seen caga yi presque benn lañ de dañ koy paasante rek dañ ko nekk day paasante kii day dóor waa mi ngi nii kii mooy Odette moom ca caga caga mi ngi nii ngeen xool ki xam ni jag dañel am lay dóor ba ne tat duudu ka jox ay million mu tasaare ko ci boîte de nuit donc duudu ka ñi ngi ñëw te kii du ci dara ñi ngi ñëw incha allah duudu ñi ngi ñëw ci opération rëbb dëmm sa dossier diis na lool lool lool lool mais bés moo ko fëggee fii li nga xam ni lépp dëgg la ak sa baay bi nga toroxal loolu lépp mi ngi ci dossier bi da sa baay ba muy dee am na lu ñaaw loo ko def incha xam nga man xam naa dinaa la ko indil incha allah noo ko defee sa baay ba mu sukuraat ci ba mu dee ci fan yi nag moom takk nga ñaareel maa ngi lay félicité mais caga ji boo ko bàyyiwul ak sañu milliards yi nga leen di jox incha allah duudu bientôt incha allah dinañ ko euh, duudu est devenu ministre ah c'est bien donc si baax na baax na baax na loolu moom Sénégal moom seeni ministre moom jarul jarul dóor sa mais bo de tout façon comme Doudou est devenu ministre euh, opération rëbb bu dëmm peut-être dans bu dul samedi bii di beneen bii di ñëw euh, dinañ indi bu euh, Doudou Ka parce que leen nañ ko ba pare dossier bi bouclé nañ ko donc mi ngi nii gis ngeen caga cag seen caga ministre yi gis ngeen seen caga ministre yi voilà seen ministre yëpp ay naan ko tu lañ ñoom ñëpp ay naan ko tu sàngara mi ngi nii caga Doudou bu leen jaawale seen caga yi nag caga bu ma leen yi ma leen woon sànq wan naa leen fi caga Aly Ngouille Ndiaye yi Aly Ngouille Ndiambi Ndiaye naa leen fi caga ñoom euh, Abdou Karim Fofana kii moom caga ñoom Doudou Kala Doudou Ka voilà kon bu leen leen jaawale de leen leen xool bu baax ngeen leen di xàmmee kii caga Doudou Kala ñoom ñëpp seen taaj yaa ngi ci biti. donc nag ñoo ñii may wax ay autorité lañ ay autorité la ñuy sàcc suñu milliards. Euh, yoo xam ne suñuy impôt lañ suñuy taxe lañ suñuy alal lañ euh, ay détournement de dernier publics la yu ñuy jox caga ji donc ñii ñëpp dañ leen di génne tagal leen ko ci euh, marché bi ngeen xamee ko noonu donc ay caga lañ ay manipulateur lañ ay bandi salte lañ yoo xam ni daal ay sàcckat lañ ay rawalekatu alalu askan wi lañ ay samba booy lañ yoo xam ni war nañ mën a taxaw ñun ñëpp reyanteeg ñoom ba jëlee leen fi ay baadoolo la ñu woon démb ak bërki démb ñu def lépp lu ñu mën ba jëlee leen fa ay aussi ay trafiquant euh, de drogue lañ ay narcotrafiquant lañ ay trafiquant d'armes lañ ndax bu leen fàtte y avait le navire Eolika navire Eolika dañ fay ñëwoon euh, ñu jàpp leen ñu ne woon dañuy ravitailler en en approvisionné wu en carburant euh, ñëw gaare Ndakaaru Euh, ñu jàpp leen ak trafic de d'armes et de munitions yooyu yëpp gars yi récupéré nañ ko euh, ñoom seen bopp ñoom nguur gi jël nañ ko lijjanti nañ ci seen bopp donc le bati le le navire Eolika euh, bu mu fi ñëwee ne day ap costé wu ci port ba naan day s'approvisionner en carburant niñ fa liñ fa fekk ci ay tonnes darm Euh, euh, euh, trafic d'armes et de munitions kenn xamul nu mu day ba suñ jonn yàlla tey kenn mënul wax ne mi ngi fii wala mi ngi fële donc loolu lépp seen gouvernant yi la ay band salte ngeen xam ne di leen yor ay wëyu ay caga ay caga drogué ay caga bako culaas yoo xam ne lañuy ñuy jiiñ Sonko ñoom moom lañ la ñuy jiiñ Sonko yaakaar naa ne avec l'avènement di rëbb dëmm de ordre do de l'opération rëbb dëmm xam ngeen ni donc ñoom lañ doon jiñ Sonko avec aji Sarr aussi en appui lépp lu mu appuyé